salaatu llazi fi kulli zaar wa fi safar ñaan borom bi subhaanahu wa nangul ñu mboolem jëf boo nga xam ne euh, jëf nañ ko fii tey ngir yàlla ak alquran di jiital ci cant ji soxna maam Xawa Dem mi nga xam ne moom moo jiite daara ji ba pare jiite daara yi Poroxaan mel ne sëriñ Muhammad euh, sëriñ Aliou Ñang di sëriñ daara macha allah doon téyel xale yi mi ngi koy junj léegi ne daara ji mi ngi sosu ci daaray poroxaan waaye ci taarix boo seetee daara ji moo jiitu daaray poroxaan ndax la ko waral mooy soxna awada mii nga xam ne moo jiite poroxaan yàlla dogal na lu jiitu 2005 mën naa ne 1997 la nekkoon fële ca Dakar ku ñuy wax Parcelles Assainies doon fa liggéeyal maamam soxna jaariyatullah bu Bousso ci alquran boole woon ko ak njàngum diine ci école yi yàlla atte 2005 bi ñu taxawalee daare poroxaan sëriñ Moustapha Basiiru di wër kum yóbbu ca daara ja ngir mu man faa liggéeyal maamam soxna euh, jaariyatullah Mariam Bousso ca la wër di laajte bañ joxoñ ko soxna awa ne ko am na sëriñ sëtub wala boog am na doomu Serigne Mouhamed Dem bu nekk dakaar di fa liggéey al alquran mu ne ah ndax yàlla kooku ma jël jëli ko ngir barkeeloo ko ca ndigal la nga xam ne eh, Serigne Touba dénkoon na ko waajuram muy Serigne Mouhamed Dem kon ñu xam ne daaray Poroxaan moo jiitu eh, ñoo xam ne daara ji moo jiitu daaray Poroxaan waaye lépp benn la ma ngi ko sose woon fële ca Parcelles Assainies Dakar. nga xam ne liggéey ba ba léegi moo wéy ba yàlla dogal mu amaat yeneen ay faron ay annexe bi ci la fee ci héliport fële ci nu mu tuddati daaru saw ak yeneen yoo xam ne wax dëgg yàlla mi ngi Dakar macha allah yàlla na suñu borom doole yaatal kon ñu ngi santaat yàlla suñu borom subhaanahu wa taala léegi di ñëw ci taarix tuuti rek ci soxna Faat Bintu mi nga xam ne dafay tari léegi di ko dëgëral ñépp rek ci pas-pas bu am solo boo nga xam ne nit ku ne war na ko am digganteem ak boromam subhaanahu wa taala ndax ba yàlla àttee daara ji ñu war koo taxawal nga xam ne liggéey ba la ca tàmbali sax mën naa ne la fële la ci Kër Massar ca Dakar nga xam ne première inscription yi sax waaw roqee ci la bokk waaye première inscription yi sax fële laa ko doore nga xam ne avant ñu ñëw fii def am nañ ay quelques inscriptions nga xam ne roqee ak ku ñuy wax rakkam ju ñuy wax Bouchra waaye yàlla dafa àtte bi ñuy ñëw ba ci yoon bi wàcc ci péage bi jël autoroute ngaabu bi mu mel ne waaye juram dañoo intercepté ndax homme de loi la bi ñu taxawloo fekk ñu yoroon pick-up boo xam ne dañ caa ay bagages te loolu c'est normal ndax li ñuy wax dégagement xuma Euh, aménagement de bagage ak yu mel noonu ku nekk ci circulation bi boo gisee lu mel noonu da ko contrôler waaye yàlla àtte ñu ànd ak suñu waajuru tedd macha allah di sëriñ Amdi Njaay macha allah di doom ci sëriñ bay Njaay gol bi nga xam ne liggéeyam bépp ci alxuraan la ak yitte doomu aadama yi ñu ngi koy ñaanal suñu borom subhaanahu wa yokk aw fanam te gën koo dolli wér ndeysaan di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba ne ko ñun de daara sax lañ la ubbi moom lañuy ñuy ubbi ji fële ndeysaan mu bëgg ci waaw mu bëgg ci lool ba jël adresse baak yépp waaye nag man loolu lépp man defoon naa ne om de tenue moom du jël doomam du ko yóbbu ca daara bi waaye yàlla àtte ndeysaan demuñu ab diir mu ñëw na mu ko waxee woon noonu la ko defee inscrit def inscription ak lépp boobu ba léegi tamit mësta bàyyi ndax daara alxuraan léeg-léeg mu toll ay tolluwaay yoo xam ne macha allah xam naa ci dara ndax ku ci liggéey ay plus de vingt ans trente ans da ci xam dara waaye mës mës bàyyi loolu lépp li muy wundu rek ne alxuraan ñépp a ko moom te boo seetee léegi ci daara yi macha allah daanaka ñañ seen tuutoon ci daara yi bu njëkk daanaka ñoo fees daara yi doomi magistrat yi ñoo fees daara yi procureur yi nangam sangam nga xam ne xam nañ ne. lii mooy li njëkk te mooy li mujj muy alxuraanu karim te képp ku ci nekk suñu borom dana la sàmm sàmm goo xam ne du am fu mu tàmmulee dana am fu mu tàmmulee waaye du am fu mu kon loolu ñu ngi koy gën a dëgëral nit ñi di leen gën a dénk alxuraan téere bi ne mooy téere bi nga xam ne mooy dusturu doomu aadama yi te ëllëg suñu borom subhaanahu wa taala moom la ñuy laaj waxoon na ko sallallahu alayhi ne ko ëllëg kat danañ la laaj. fan nga tolloon ci téere bi te sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ak eh, ci ci ak njabootam lañ kon nañ ko gën a fonk gën koo jàpp gën koo sàmm bu baax a baax lu àdduna jaxasoo jaxasoo lu mbir yi jaxasoo jaxasoo nañ xam ne delluwaay ba mooy yàlla suñu borom te yàlla suñu borom lim ñu wàccee ci suuf mooy alquran lu baax nag mësta yomb inna allaha shara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kon àjjana gaa ñu baax ñi ko daan jënd ci ab coono rek lañ ko daan jënd waaw buñ ci fàttalikoo suñu suñ sëriñ bu tedd bi muy Cheikh naa Cheikh Ahmad bàmba nga xam ne wax dëgg yàlla weeram teru na fu ne ñu ko fay kañ di ko fa màggal nga xam ne ay jëfam du dem ba ilaa yawmi diin li ko ko mayoon rek mooy ne dàng borom bi subhaanahu wa taala ne dàng sallallahu alayhi wa ak téeram bi kon lum métti métti rek xam nañ xam ne lay dëgg rek mooy mujj alxaqu saabit alxaqu saabit wa am albaatil wa yanhala fasaahiqun wa saafin waaw dëgg rek mooy sax waaye ay neen lum kawe kawe kawe ci ci nërmeel rek lay jëm kon loolu dañ ko doon laytaare jataay bi di santaat bu baax subhaanahu wa taala di santaat ñaari sëriñ daar yi nga xam ne wax dëgg yàlla bàyyi nañ seen yitte ñëw taxaw Euh, ñu ci xale yi wax dëgg yàlla muy sëriñ Mohamed Dia sës ak ji wax dëgg yàlla di ko jàppale ci lépp ci lépp waaw ndey mi tam tumurankewut ci dara waaw yor ay xale yu sawar yoo xam waxtu wu ne ñu ngi ñëw ci daara ji di nemmiku lu wa luñ war a defar ñu defar duñ xaar kenn ci dara ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal suñ borom subhaanahu wa taala yàlla na suñ borom gàttandoo leen ak yërmaandeem ak tawféexam wax dëgg yàlla démb bâche bi ñoo ci nekkoon ak lépp kon ñoom Euh, moom daal sant gi amul fu mu di ci profité di sant sëriñ Aliou Niang tamit moom it wax dëgg yàlla di borom daara euh, di boroom internat di kóllëre soxna ummi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant tamit soxna euh, di soxna sant soxna Faat Fall moom it mi nga xam ne moom moom yaay mooy maam yi soxna musli ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaayam sant googu nag da ci yóbbaale mboolem parents d'élèves yi waxtu wu ne daal mu ngi indi ay teraanga ci biir daara ji di ko def ngir alxuraan ak njaboot gi nga xam ne ñépp a ko bokk kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ci mboolem turu waay jur yëpp ndax it waay jur yëpp la ko defal di sant waay jur yëpp ci jàpp ci jàpp ci bis bi kenn tànqam lu kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant tamit soxna jaare yi nga xam ne ñoo fi nekk yore xale yi nga xam ne waxtu ne ñi ngi ci xale yi di leen nemmiku seen njàng seen cet ak yu baree bare euh, di ci jiital soxna maam jaara jeng comme niñ ko waxee nga xam ne ñaari xaafis yi génn moom moo leen euh, ci loxoom lañ génne ñi ngi koy sant bu baax di ko euh, dollee ñaax di ko ñaanal suñ borom suñu borom subhaanahu wa taala gën koo dëgëral kon daal kàddu sant la ak kàddu soññee ak kàddu ñaax di wax rek ne alxuraan moom euh, man na boppam démb rawatina tey ku xool nii yëf yi di doxe rek xam ne alxuraan wax dëgg yàlla man na boppam waaye du tee wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin suñ borom subhaanahu wa moo digale ñuy ñu santa moo digale ñuy soññee ci téeréb suñ borom bi subhaanahu wa muy alxuraan bu ko defee ñu ñëpp àndante jàpp ndax loolu mooy li nga xam ne mooy gën a dëgëral liggéey bi ndax soxna Oumy Njaay euh, mi nga xam ne sama rakk la euh, wax dëgg yàlla dafa juddoo ci daara muy daara ja nga xam ne tuddoon naa ko léegi muy daara soxna Awa Dem internat bi newoon Parcelles Assainies nga xam ne fa la euh, juddoo ba pare yaroo fa jànge fa alxuraan ba ba wàcc fa ba miin ko lool macha allah euh, nga xam ne loolu moo ko génne ci daara yóbbu ko euh, kër borom këram nga xam ne mësta taqoog daara waaw kon lii ab cër la boo nga xam ne da koo yayoo ba pare mate ko man ko ba pare donn ko ci ay waajur ñëpp xamandoo ko xëyul xëy rek ubbi daara teg waaye da koo dundu tarbiyewu ko ba toll ba egsi fi ci egsi wax dëgg yàlla di jàmbaar di góorgóorlu bu baax baax ñu ngi koy ñaanal suñu borom subhaanahu wa gën koo dëgëral gën koo kàttanal gën koo aar gën koo sàmm ba naal yi nga xam ne am na ko ci alxuraan suñu borom uh, àggale ay naalam ndax dama koy wax moom soxna maam Awa Dem ak sama jëmm ju xeebu ji ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne wax dëgg yàlla ci keppaaru soxna Awa Dem uh, lañ nekk suñ yéene ci alxuraan yaatu na lool lool lool ba tax na daanaka niseer yi tamit macha allah yaatu na yaatu na waaw kon nag dañuy ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa ànd koo jullit yépp ci mboolem fu ab jullit nekk te di safoo alquran eh, daara ja daaraa ngi nii yoo xam ne am na eh, yayoo ndimbal loo nga xam ne wax dëgg yàlla eh, bu ko laajee war na koo laaj bu ko laajut war na koo laaj ndaxit it koo nga xam ne ci cosaan sa say maam Serigne Touba moo leen joxoon ndi ndigal ci jàng ak jàngale kooku boo sampee daara di ca góor góorgóorlu kooku loolu lu war la te suñ borom dana la fa fekk ak ndigalam eh, ak ndi eh, yërmaaneem eh, waaye nag du lenn li moom faw ñu koy wax ndax daara moom ku lu yayoo ndimbal la ñu koy dimbali ci côté yu baree baree bari ndax wax dëgg yàlla ñu tàmbalee léegi ñu ngi naan eh, ñaari at lay tolloog ñett ak yu mel noonu wax dëgg yàlla ak réalisation yi ñu ciy def nga xam ne loolu yitte rek la te xale yi nga xam ne mokkal nañ fi alxuraan nësër nañ ëllëg ñu ànd ak ñoom ci programme franco arabe boo nga xam ne day ànd ak majalis boo nga xam ne macha allah danañ ci ame seen diine ju wér ba pare seen njàngum diine tamit incha allah danañ ko fi mën a wéyal bu baax a baax ndax loolu rek moo am ci yeneen programme Dakar boo fa demee loolu nga fay fekk xale yaa ngi jàng alxuraan macha allah buñ paree ci alxuraan yi ñu ngi leen di defal programme accéléré boo xam ne danañ def français ak arabe ba pare boole koog majalis nga xam ne ëllëg danañ mën a taxaw ci instance yi gën a kawe te loolu rek lañ soxla ci société bi dem ba société bi ñu am ay ministre ay président ay chef de euh, société yoo xam ne euh, waxtu waxtu julli du leen raw te lépp loo leen dénk ñu xool ci seen diggante ak seen diine xool ci seen diggante ak seen suñ borom subhaanahu wa taala te loolu li koy may rek mooy ñu dimbali xale yi encadré leen ci ñu jiital ci seenu dënn xam-xamu diine ndax lépp lu waaye mën a am ci àdduna ci xam-xam lu kawe kawe kawe lu mu màgg-màgg te àndut ak xam-xamu diine rek ragal yàlla nga day des te yu baree bari mën na caa xew ba loolu moo ñu euh, gàllankoor ci yu baree bari kon nañ gën taxawu daara yi gën leen jàppale ci euh, dimbali leen ànd ak ñoom ci liggéey bi ndax dama koy faral di wax léeg-léeg da ngay gis sëriñ daara ba nga xam ne la mu war a la mu war a réaliser ci daaraam sax mooy def ay kurtu kurteem euh, ba matale ko loolu nag defe naa euh, jullit yëpp ñoo ko waroon a ànd ak moom ndax am na ci loo nga xam ne ku la ko tegg rek ndax fardu kifaaya la bu ma juumul jàng alxuraan bu fekkee am na ñoo xam ne teggil nañ ko ñi ci des ñooñu war nañ leen a taxaw ci côté yëpp waaye ku mel na man ni man ab sëriñ daara la quatre heures laay yow di jàngale alxuraan waaye maa ngi sama kurtu kurtu yoo xam ne dama koy def di sotti ci biir daara bi waaw te to am am na fu ma àgg ci ay réalisation yoo xam ne sant naa yàlla kon loolu euh, dana yàllu tamit jullit yi di ko dégg di xam ne sëriñ daara yi seen yéene kawe na war nañ leen a mën a gën a taxaw gën leen a jàppale te te bañ leen a teg ci yenn considération yi nga xam ne xaj na yàqkat yi rek ñoo koy def waaye kum ci doon ci sëriñ boo ci mën a tudd muy sëriñ daara di jàngale tey jii xam-xamu alxuraan ak xam-xamu diine da koo nangu ba pare waaye yeneen xam-xam yépp da koo nangu te bu sañoon wax dëgg yàlla man cee man koo jëmbat ci njaboot gi kon loolu euh, ak soññee la ñu koy jiite jiit euh, jiital ci suñu euh, jëmm ji ba pare di ko àggee ñëpp di waat bu baax ci kàddu yi xam naa xaw naa jaxasoo waaye ñu ngi ci euh, sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di wax awaaxiru naa waana an alhamdulilahi rabbil alamin lépp loo xam ne lu ci dëng la rek ñu leen koy jéggulu di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ci barke weeru tedd wi mu defal ñu tawfeex ak taysiir jàppale ñu suñu rakk ji ci daara ji wax dëgg yàlla ba daara ji àgg foo nga xam ne incha allah dana kawe njort waaw jërëjëf. kàddi sant la waaye kàddi soññee la tamit wax dëgg yàlla ci ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi ndax ni ñu koy faral di waxee rek alxuraan moom ñett ñi nga xam ne ñoo ko seq wala ñeent ñi kenn bu ci yokkutee rek résultat man naa am waaye mën naa gën a métti waaye ñeent ñi ko seq. Euh, wala ñett ñooñu ñoom ñëpp bu ci si nekk defee li nga war a def résultat yi lu muy métti métti résultat dina am te métti bi dina wàññeeku kon ñooñu ñëpp déggee nañ ci sa kàddu yi ñu gën see soññeekoo ñu ko sequ weesuwul jàngalekat bi ak jàngulukat bi ak kiy jàng ñetti ñooñu ku jàngalekat bi defee li mu war rek kiy jàng def li mu war kuy jàngulu def li mu war résultat dina am te coono bi du bari lool waaye kii jàngalu bu deful li war bu résultat amee yi dina métti ci kiy jàngale dina métti ci kiy jàng loolu lu mat a bàyyi xel la te it ñu jullit bu nekk war a am pas-pasu ne alxuraan du da ngay koy sawaare di ko jàng maanaam nit ñaa koy def rek ma di ko def waaye alxuraan jàng ko war teef la ci ab jullit rawat na taalibe Sëñ Tuubaa Seexul Xadiim war teef la jullit ñi ku ci nekk alxuraan da nga yëg ne aw ak tool la boo xam ne am nga ci sas jàng ko mokkal ko nag moom kaamil bi lépp loolu fardu kifaaya la du farata bu ko ñenn ñi mokkalee rek mu yóbbu ñenn ñi waaye jàng alxuraan xam ci dara loolu warteef la ci ab jullit yente yàlla moom alayhi salaatu dafa wàccee ci moom ayatul quraaniya mu yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi nga xam ne yéen ay jullit ngeen gëm yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam musal leen fegal leen seen bopp ci sawara nee na boobu bi wàccee ku ñu wax Omar ibnu Xataab radiyallaahu anhu yent yàlla muhammad xamal ko ne ko ñun dee xam nañ nu ñu muccilee suñu bopp ci sawara waaye nan la ñuy suñu njaboot ci sawara yent yàlla muhammad ne ko allimukum mimma allamaka laa lii nga xam ne moom leen yàlla xamal muy téere bi xamal leen ko seen njaboot ñu ngi ne kon nit ki ngir mu mën a mucc sawara faw ñu xamal ko téere bi yàlla bi te suñu borom subhanahu wa taala li muy soññe ci alxuraan yëpp du setti ne ñi sawa alxuraan nañ dem jàng alxuraan waaye daa yéen jullit ñi wala am ci foo xam sax day day jëfandikoo baatu naasu nit ñëpp lay jël qad jaakum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurihim wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un ak ci yeneen aayaat yoo xam ne nii day wane ne képp koo xam ne nii da nga dund gi da nga caa setti alxuraan ci finna ngay dund te képp koo xam ne nii finna ji la dal ginnaaw alxuraan moo tax mu dal la na nga yëg ci ngay faatu na nga ci ngay dekki na nga yëg ci ngay dem sawara loolu yàlla nañ ci yàlla musal kon doomu aadama bu fekkoon ne am na leen lu ko mën a satisfaire ci àddina ba mu doy alxuraanu karim lay doon moo suñu borom wax ne wa man arada an sikri fa inna lahu maysatan danka wa nasru yawmal qiyamati ama loolu li ñu ciy déggee mooy li ngay am njàqare ci àddina yawmal qiyamati mi loolu lay mel te loolu wan ginnaaw alxuraan moo koy wax kon jullit ñi war nañ ci am taxawaay doon gi nga doon julli rek may na la nga taxawu ñi jàng alxuraan rawat na bu la suñu borom dénkee njaboot nag njaboot googu suñu borom sant na leen nga yóbbu leen ci daara ja yow la sant nga jàng leen mënoo ko mu ne leen leen ci xam ñooñu nag la war si ñoom muy seenu dund ak taxawaay seenu faj loolu nga jàppalante jàppalante ña ña sa nekk dana tax xale bi xam alquran dana tax xale bi yar bi mat loolu laa ne warteef du mag la joo xam ne nii wayjur wu nekk war na ko bàyyi xel seen alim dafay wax wax joo xam ne suñu too ànd na ko ci naajul xadaayil aaj nee na bu fekkoon ne dañoo natt ku nekk lan la war a fay ci alquran mu ne dañu xool araf bu nekk junne lay doon konoon araf bu nekk nee na bu ñu doon xayma nit ki ñu ne yow léegi dañu xayma lan mooy àq pour lii nga mën koo xamal nit ki ñu fay la nee na araf bu nekk junne la léegi nag alxuraan ñuy compter araf yi dañuy wax ne mën na 32 millions araf mën na ko léegi nag misaalal nag euh, araf bu nekk ñu calculer ko ci 32 32 yi teg na maa andi loolu rek pour mu gën a jàppandi araf bu nekk nga misaal ko si jinne loolu day nekk 1 million 1 milliard 61 mille 61 millions la ak yu tegal loolu day nekk ci bu fekkoon ne nit ki fay na àq ñu jàngalal ko doomam alxuraan kon asanjaar yi bu fekkoon ne fay nañ leen seen àq ñooy doon milliardaires yi réew mi ni ñu doonee sang doon ñooñu yàlla yàlla ne ahlullaahi fi dunya ahlul quran wa qaasatuhu noonu la ñu waroon a nekkee milliardaire bu fekkoon ne seen waajur fay na leen seen i àq kon loolu li mu bë li mu bëgg wax rek kenn mëntu dab àqi jàngalekatu alquran kenn mënu koo dab wala liggéeykatu alquran ñii nga xam ne ñoo si nekk suñu yaay mi jiitu ko daara ji jur ay bànqaas ba résultat bu mel ni mën cee génn yàgg ci teen moo ko waral waaye ku nekk xam ne ne xale yii seenu masoor amagul ba noppi ñu mën a def si ñoom téere bi ñu mën a jàng njàng mu sell mii la ko ca def dara fekkiwut ko du lu post di fekkee du lu coono yi yaram di fekkee amul kon yàlla na si borom guddal sa fan te gën a barkeel daara ji waaye loolu na na na xelam ku xam lu xew da koy ñee bëri na lu nit di tudde seen liggéeyal seen tuwaa wallaahi bu seen tuwaa ñëwoon da ciy génnee loxoom wala mu set na ne leneen ci jóg waaye alxuraan moom képp ku ciy dox na seen tuwaa ngay liggéeyal boo tegoon sa kaamil ci loxo na waat ko it dara du la ci fekk sëñ Tuubaa danoon ñaan ne yow sama def ma bépp jamono may liggéeyal alquran wal wal tajulli bi an ak akuna qadiman lil kitaabi xasiisi fi kulli xiini def ma ma nekk bépp jamono boo xam ne damay liggéeyal ci téere bi di alquran noonu nga xam ne moom noonu la saxee ci alxuraan di ko liggéeyal waxtu wu nekk ba suñu borom defal ko ci lu mu defalul kenn loo xam ne histoire nettali ko noonu la diggalee mbooleem ku képp koo xam ne wéeru nga ci man del jàng damay wax ne bayit boobu rek waroon naa tax murid yëpp jàng ji alxuraan ngir jëfee ndigalal sëñ Tuubaa jooju sëñ Tuubaa def na kullu mari kullu muridin yallus biya fal yuddim tilaawatan li xayri sikri xadru sin bépp murid bu wéeru ci man na tax taxoo jàng téere bi benn abiyaat boobu tax waroon naa nit tax nit jàng ji alxuraan wala mu jàngal njabootam alxuraan ngir mën a jëfandikoo ndigalal sëñ Tuubaa loolu loolu ci abiyaat yu bari la yoo xam ne bari na lu ñu moomale sëñ Tuubaa nekkul sëñ Tuubaa moom waaye Sëñ Tuubaa moo ko moom te loolu jëf na ko ñu gis wane na ko ñu dégg wax na ko ñu dégg mag ñi ci ay jamono dañ naan bind sax ay kaamil di ñëw mu leen ciy fay jàpp ne moom la ñuy liggéeyal tool bi moom lañuy ñuy liggéeyal ku ci bind dara wala nga xam ci dara moom moo la war a neexal ba wax si borom ne ko sa téere sa téere bii di alxuraan moo nekk sama diine mooy sama xarit mooy sama wéetal nit mëntu ñàkk diine foo mu am lu mu gëm donte ay xeer la yooyu jaamu sax wala ay xaram foo nga am loo gëm nit du ñàkk diine koo mën a gis rek am na lu mu gëm sëñ nee na man benn diine la am mooy alxuraan nit du ñàkk xarit boo xasee am am xel rek masul man mu kala rek faw nga am koo xam ne nii mën a doon sa xarit nit du ñàkk lu muy wéttalikoo faw mu am lu muy wéttalikoo bu mu ci yii nag sëñ benn la ci joxoon moo ko doon kitaabu ko diini wa huwa xilli wa moonisi hadaani bil wa nafsi bii sakka sa téere bii mooy sama xarit mooy sama diine mooy sama wéttal si laa gindee sama bopp ci laa sellalee sama bakkan ëllëg tamit yërmande ji ñuy yaakaar suñu borom lu mu yaatu yaatu yaatu ci alxuraan lay doon li ñuy bëgg si borom jañal ñu ko it si mbugalam li muy métti métti alxuraan lay doon kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi rajawnaa min almawla bihi xayra matlabin wa fusnan bihi fi kulli dafen wa fil jann da ngay fekk ci ay abyaat yoo xam ne li tax ñu war a gën a bëgg alxuraan li ñu am ci warsak ñu fexe mu dem ci alquran rawat na bu sa doom nekkee ci daara joo xam ne am na sécurité ci dundam am na sécurité ci nekk nekkuwaayam am na sécurité ci wér-gu-yaramam ba noppi ñuy def ci moom téere bi di la di la ko yaral yar bi bi mi nga xam ne loolu lañ bëgg loolu la sëñ Tuubaa bëgguñu ñu mel ki wax na ko sànq na daara ji mu ngi juddoo bànqaas la ci bànqaas yi daaraay soxna jaara ji daaraay soxna jaara ji ku nekk xam nañ ne kéemtaan la ci jamono li ñuy génnee ci ay afisul quran ñu nekk ñoo xam ne ñu mën a bekk alquran la ñu doon ba nepp bind kaamil mokkal alquran moom bari na mën nga koo dégg ci jamono bi waxtu wu nekk waaye mokkal ko ba man koo bind ci téere te doo ko xool ba noppi yar yar boo xam ne nii ku la gis xam ne nii ab julit ak xam nga xam murit saadix nga loolu moom yombatul ci jamono ji ak ci àdduna bi ba mu dañ na kon loolu bu sunu yaay ji bu ko jiitee nga sa doom nekk ci daara ji n na nga boo ci am rek ndax na nga yëg ne yaa ngi liggéeyal Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim suñ tubaab mën nañ ko delloo njukkal lu gën a rëy fonkal ko téere bi di alxuraan gën ko koo jàppal te loolu mooy fexe ba jàngal njaboot gi te la ci war ñu di ko ci def bañ caa naw lenn waaye bañ caa xeeb dara suñu ko defee rek fu soxna si egg ëllëg ñu di ko ñee suñ tubaab di ko tiiduroo ci mboolee mi moromi jigéenam bu ëllëgee yomal xiyaam mu di ko tiiduloo soxna si bu bu ko suñ tubaab tiiduloo bu noppi ñi mu àndoon a liggéey bi lay gestu tiiduroo tiiduroo leen te loolu mooy ñiy fexe ba seeni ñaq di dem ci dongo yi rawat na seeni doom yoo xam ne daal bëri na li ñu tuddee Serigne Touba loolu du du du nekkul mbirum sëñ Tuubaa waaye alquran moom loolu mbirum sëñ Tuubaa la yàlla na suñu borom subhaanahu wa taala gën a dëgëral li nga xam ne mooy daara ji gën ko yokk wér ñun de yàlla xam xam na ne nii ñi ñu bokk na ci ñu ñu gën a yéem moom ci ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di yéem bariwuñu nag waaye moom bokk na ci boo doon compte cinq privé yi mën na caa bañ a génn parce que daara ji ñun ñoo ñoo ma dëkk amul benn waxtu wu ñu jog ñi ay xale la nekk ay jigéen waaye li ci gën a bëri ñoom ñoo ñu jox sax jàng amul waxtu wooy jog loo teel a teel a jog wala nga yéex a jawee koo ci kaw wàcc yaa ngi dégg ñoom ñu ngi jàng ngoon bi it bi ñu jàngoon ba wàcc ba nga romb fii it yaa ngi dégg ñoom ñuy jàng amul benn waxtu te demuñu fenn timit nag loolu ànd ak yar koo xam ne nii ci ñi leen di jàngal ak ñi fi nekk ñëpp ba ci son dayu mi roykaay geeg bëgg lu baax geeg na mën a sonn ci xale yi looloo jàngukaay bari na mokkal alquran bari na waaye yar bi sëñ Tuubaa bëgg ñu mel nag mu ngi tumuraanke sëñ Tuubaa fi mu jaar ak alxuraan fu mu mos a nekk wutal ko barabu daaray kaamil di bind ay nit ñu di ko jàng waxtu wu nekk ginnaaw waxtu julli bu juróom di wut ay nit ñu di ko bind ngay bind di indi mu di fay loolu ku ko def ak alxuraan teral nga ko waaye yemoo di bind di ko tagg te li jiitu mbind moomu mooy lépp luñ la jox lu dul alxuraan tegal ci suuf lay doon muy koom-koomu àdduna waaye bu dee alxuraan sa ñaari loxo nga koy nan teg sa dëng doo tëdd ci kaw ngir alxuraan ji nga bëgg teg ci kaw yow nga tëdd ci suuf foofu ku fa yem alxuraan teral waaye du ci am day jël ay parfum yi gëtt yi gën a neex di ko sotti ci kaw téere bi foofu ku fa yem ak alxuraan teral nga ko waaye du ca yem day jël ay abyaat di sadd jëmee ci alxuraan nu ne nag sëñ Tuubaa wéyee na ko alxuraan nu ne da ngay fekk ci sëñ Tuubaa mu wéyee alxuraan loo xam ne soo gis ñu ku wéyee noonu alxuraan ak suñu njàng lu mu sori sori ci misaal sëñ Tuubaa wéy na suuratul quraan yi yëpp téeméer ak fukk ak ñeent wéy na ko ci benn téer bu ñu tuddee Taysiirul Asiir nga xam ne day tudd suratul fatiha ñaan barke bi ci nekk tagg saar wi tudd suratul baqara ñaan barke barke bi ci nekk tagg saar wi ba mu ne jinnati wa naas tudd na ayatul quraniya da ngay dem ci yenn diwaan yi Cheikh laa dajale woon ñu tuddee ko diwaanul quraniya nga jël benn ayatul quraniya tënkee ko xasida gi xasida bi abyaat bu njëkk bi ci araful quraniya lay tàmbalee lu mel ni xasida wa qaani hafisun qaa aaya bu mu ko tëddee mooy wallaahu yaxsimuka mina naas lu mel ni midaadi wa aqlaami mooy man yutin rasula faqad ataa Allah lu mel ni ba ahbabtu rabbal alamin mooy inna laha maana lu mel ni fatafat mooy fa faqat nasarawullah nga xam ne abyaat bu ci nekk rek a araf ci aaya boobu la tàmbalee loolu ku fa yemoon ak alxuraan tagg nga ko ginnaaw bi nga defee suuraat yi ba nopp mu jël aayaat yi te loolu lu bare bëri ci alxuraan la boo demee ci wa innaka la ala xuluqin azimin muy xasida am amda araf bu nekk fukki bayit ak ñaar la koy def ba aaya bi jeex tàkk lépp muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julli ci moom yemut ci day dem ba mujj sax mel ni loolu dafa xeebu ci moom muy tagg alquran ci par araf assinu muhjamatan wal kaafu wal raahu li raahi wal baa'i wal baa'u wal raa'u ay xeeti léeb la yoo xam ne ni ay suur arafi alquran lay jël jëmee jëmee ko ci alquran ànd ak loolu yëpp nag njabootam gi yëpp alquran la leen la leen jàngal njabootam gi yëpp tamit ci ñooñ la leen seeyal kon tey buñ ñëwee résultat bu mel nii di génn di law ci euh, Parcelles Assainies ci yeneen daara yi ni ko mbokk mi limee sànq ca daara saw ca Poroxaan ba fii nii na nga yëg ne yaa ngi làq ngërëmal Sëñ yàlla na gën a yàgg bi barakatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye ki matoon di tiidaroo mu nekk champion du monde jigéen ñu ne dañuy sargal jigéen mooy sunu yaay soxna Awa mi te loolu liggéeyam feeñal na ko ndax tànn gi nga ko tànn def ko ci soxna jaara yi nga xam ne tey lu Sëñ Tuubaa barkeem bi egg liggéeyam soxna jaara bokk na ci tey ñu tànn ñu tànn ko ko day mel ni ne léegi ñu ne soxna jaar nekk fi dañuy wut koo xam ne mooy jàngalal turandoo yi soxna jaar yi ñi tànn ko ci mooy taxawaayu soxna jaar boobu yàlla na si barkeel njaboot gi wax ji mën naa yaatu te am njëriñ waaye waxtu bi moo dul ko matee lépp rek nekk luy nekk suuxat ak yokkat ci daara ji bi barakatu rasulullah la alayhi wasallam waaye bi barakatu safarul xayri gi nga xam ne moom la ñu toll ak barakatu bis bi ñuy dëgmal kon loolu ay kàddu sant la yu mëntu ñàkk rek ay ay kàddu seede waaye daara ju dal xele ngi nii joo xam ne nii man saa su nekk damay sant si ci xam gi ko xam ak dend gi nga xam ne dend ko dend naa ko moom ndax maa ngi ñaan si borom defal ma ak ma mooy na xéwal li may nekk nekk si njàng ak li ma ci xaw a diire yëpp ndax ñaar fukki at a ngi nii maa ngi ci jàngale ya caaju ma yéene sama doom jàngee ci beneen daara bu dul daara bii te loola du du du ma ko teg rek ci damaa nekk ñoom ni wala dina xam waaye bu ma saytoon njàng bi ba xam ko la ma gis yar bi te loola doyu ma am na ay fulla yu ñàkk fee dugal sama sama njaboot ak yooyu waaye saytu gi ma saytu ba xam ne lii mënumaa gis lu ko gën moo tax na ma tàbbal leen ci yàlla na suñu borom barkeel sag dund bi barakatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa njaboot gi yëpp fi nga bëgg ñu yegg ci alquran rek suñu borom yeggale leen fa te incha allah rabbi noonu lay demee xam naa ne dañuy àgg ci kàddu parade élèves yi bi ñu joxe say oustaz Abdoulaye Niang dañu yi Niang ñu jox parade élèves yi ñu indi seeni i kàddu su ko defee ñu àgg ci kàddu kilifa yi ci des yi nga xam ne mooy tëj jotaay bi ñu jéem a def ñaan incha allah rabbi asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa daara ji di jiital soxna Maama Awa Deme di ko ñaanal bu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal soxna Ndey Ummi eh, di nuyu parents d'élèves yëpp ak képp koo xam ne teew nga fi di sant bu baax a baax a baax ndax alxuraanu karim moom képp ku ko def ci sa doom kooku amoo fayam ñuy ñaan parents d'élèves ñu gën a taxaw ci gën a farlu ci daara ji gën a soññ suñu doom yi bu baax a baax a baax surtout bu ñu amee vacances ñëw ci kër yi ñu gën leen di taxaw bu baax a baax wax dëgg yàlla daara ji de ñun yeex a indi suñu doom yi la ñuy réccu waaye loolu kese lañ ci am na ñuy réccu bu dee yar macha allah am na ci ñoom bu dee njàng alxuraan mu set am na ci ñoom bu dee lépp kon nag ñu ngi ñaan tey soññee suñu bopp di njiital suñu bopp di soññi parents d'élèves yépp ñu gën a góorlu bu baax a baax a baax. Euh, surtout daara joo xamante ne si macha allah euh, daanaka kenn du la sas dara kenn du la kii dara kon li ñu war ñun daanaka ñun waruñoo xaar sax ñu duñu ko wax. ñu gën a góorgóorlu baax nag ñun nag dañoo mënta wax sant soxna maam Jaara mi nga xam ne moo yore xale yi wax dëgg yàlla comme li yent bi sallallahu wax rek. <laughs> xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu ku gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan xam koo pare di ko xamle. kon nag moom am na ci cant ñëpp am na nañ sant dañoo mënut a wax ay kaat nag waaye suñu xol daal sedd na ba àgg ci lool rek sant ñëpp parents d'élèves tamit ku dugg ci groupe yi ba gis ci groupe bi ba gis ni ñuy sante ak ni ñuy kiyee ci seen njaboot gi nga xam ne ñoom ñëpp kontaan nañ wax dëgg yàlla kon ñu ngi sant bu baax a baax tey jégal ci kàddu yi bu baax a baax jërëjëf bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla lu bari di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmad Bamba di ñaanal sëñ Mamadou Muntaxa mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem taalibe yi mbooleem jullit ñëpp suñ borom def ci Sénégal jàmm def ci xéewal suñu bis yi nga xam ne moom lañ jublu yàlla suñu borom def ci taw féex nam ko ci daan defe waaye def ci jàmm ñëpp ñëw ak jàmm ñëpp delloo jàmm euh, bisu sant yàlla la ndax daanaka sax sama kàddu du ci bari waaye santaat rek ak cant du doy ki njëkk sant mooy sëñ Moustapha Ndiaye moom sëñ May Ndiaye Gol bi nga xam ne moom waajur ndeyum Ndiaye bi tey nga xam ne moo jàpp ci loxoom andi ko ci kër gi sancal ko kër gi taxawal ko daara ji sonn ci lool ndax man daanaka sax taluma ci lu bari ndax barab bee ma nekk daanaka dafa jël sama waxtu yu bare bari waaye sëñ Amdi Mustafaa Njaay moo taxaw sonda na Umi Njaay mii mu tudde ndeyam taxawu ko lool ci daara ji samp ko ci defal ko liñ ko war a defal lépp ba daara ji ak si fi yàlla suñu borom may ko wér euh, dañuy wax ne euh, dangay tànn dëkkandoo bala ngaa tànn kër bala ngaa tànn kër tànnal dëkkandoo loolu de xam naa jotuñoo tànn kër ndax koo xam ne moom daanaka ni ko sëñ bi waxee borom daara moom day taxawee rek moo tax du daan fee ci quartier ba laay dëkk ca fee laay moo gën a lis ci man fa yàlla may rek fa lay def kër waaye ñu de sant suñ suñu borom ci fi mu ñu may ñu def fi kër ndax ñi ngi fi dëkk koo xam ne sëtu sëñ Mouhamadou Fadil Mbacke la sëñ Alaaji Baara di waajur bi sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Mbacke dëkk fi ñoo xam ne tamit suñu doom bopp lañ sëñ Abdourahim Dem euh, def naa ne quartier bi sëñ Saliou moo ko joxoon waa ko sëñ Mouhamad Dem ba ay sëtam yu bari ñu ngi fii sëñ Abdourahim Dem am na fi kër ay doomam ñu ngi ci koñ bi soxna maam Faama Dem mi ngi fi defe naa xéwal sax ci këram lañ koy togg ak ñu baree bare ñoo xam ne ay dëkkandoo lañ ñoo xam ne dañoo agsi rek ñu daal di jàpp ci daara ji waaye nag dëkkandoo bi nga xam ne ne moom moo tax nun ñu man fii géej moo tax suñu xel di dal saa suñu demee duñ xalaat daara ji mooy sëñ Mouhamadou Jamale di borom daara ji nga xam ne ñoo jëloo bi ñu ko fi fekkee muy borom xam-xam nag borom xam-xam ci alxuraan ak ci xam-xamu diine te def naa li fi jot a jàll ci ay waxam te xoolu ko fenn da ko doon waxat noonu rek firndeel na ne moom borom xam-xam waaye tamit muy ku oyof ku ñàkk ci ñaan li ñu dend ak moom ni day téewul moom mooy bàyyi daara ci mbooleem njaboot gi mu yor donga yi ba ñu ci gën a tuuti sax lépp lu ñu war a def ci kër gi ñoo ñëw ñoom ñooy def ko li koy firndeel mooy tey jii man ba ma fi agsi daanaka di 9h laa si fii maa ngi sang mais 9h agsi fii fekk nañ lépp nëpp te ngir yàlla ak moom yi ak ndongaam yi nga xam ne moom la ànd ñoom dañ koo xam ci moom ba tax sax duñ ko tàggu loo bëgg de da ngay wokkee benn ci ndongaam mu ñëw def ko ànd ak yar ak teggin ju mat sëkk ba daf sax dalay jaaxal waaye ci moom lañ ko jëlee ba nga xam ne nii dañoo cee far làggi ci kon yàlla na suñu borom fayal ku ñàkk ki naan la ku baax la fi lañ ko fekk de waaye ni mu ñu gungee ni mu ñu jàppalee sëriñ Touba yëg borom fay sëñ euh, li nga wax lu am solo la sëñ Aliou Sey Ñang euh, suñu doom nga ndax sëñ xarit Njaay suñu xarit la ñu ànd liggéey bi ca ndoorte la ba agsi fii moo tax macha allah alxuraan ji bi nga ko fi yëkkati maa ngi la ci bàyyi xel ma macha allah xam naa ne foofu rek la nga mën a jaare ñu ngi lay sant ci taxawaay bi di la gërëm di wax ne daara ji sa daara kon bu fi di géej te deen leen di nemmiku di leen euh, xool te itam di leen euh, di seet fan la ñu toll waaye amuñu payu ndongo daara yi euh, euh, yaay wala ba parent d'élèves yi am ñu seen fay ndax kat dañoo yëg daara ji indi seen ndonga ba nopp saa su nekk ñu ngi fi indi seeni i xéewal te dara umb ñu ci teg ci jiitu mooy soxna Faty Fall soxna sang jaa tuddoon na ko sànq soxna Faty Fall ab sëtam moo fi nekk waaye daata benn ndongo di ñëw ci daara ji sax la tàmbali woon ndimbalam ci daara ji bi fi xale bi ñëwee tamit mu continuer saa su nekk mu ngi fi indi ndimbal loo xam ne ñëpp dañ ci bokk xaj yàlla na suñu borom fayal na ko guddal fanam moo ak njabootam donc ku ñuy wax sëñ maam Thierno Niang tamit noonu la mel ci daara ji daanaka ku leen di lim sax daanaka da ngay lim ñëpp bañ mat rek ndax ñoom ñëpp dañoo bëgg daara ji dañu koo fonk ba pare am kóolute gu mat sëkk ci daara ji daanaka sax xéwal yi ñu sax ci weer wi daanaka dañ ko yónnee du ñëw sax seen doom kon nañu jàpp euh, dimanche dibéer bi dëkk ci weer wi ngeen di ñëw di seet si xale yi ngir ngeen di saafanteeg ñoom te loolu daf ciy baax waaye loolu daata muy am doo fi gis kenn kóolute gu mag boobu ngeen di nag am ñu seen fayte yàlla suñu borom dimbale ñu kàttan lañu ba ñu mën koo àggale euh, man nag alxuraan ji moom lu ci waaye def rek day néew ci man waaw li ma fi dégg lépp ak yeneen ak yeneen rëy na lool ndax sëñ bi wax na ko alxuraan moom benn faatiha sax mënees koo fay waaye mboolem borom daara alxuraan yi nañ takkuwaat bu dëgër góorgóorluwaat te xam ne li ñu waxoon léegi rek moom mooy mujj njëkk te mooy mujj te nag dafa mel ne Sénégal dañoo xam nañ ko xam nañ ko bu baax ndax daara joo ci dem doomi ku nekk nga fay fekk daara ji soxna Fatou Bintou Male gis ngeen ko ki ko fi indi ab lomb tëni la te itam sëñ Cang wax na ko ca yoon wa rek la dajee ñun ñu yor bagage yu bari mu ne taxaw leen far sëñ bi daal di waxtaan ak moom mu ne ko ah ñun de dañoo jóge ca ndakaaru ñëw fii ndax Dakar daara dafa nekk dafa fees ñu ñëw fii ci ndigalu sëñ bi dafa indi daara kon nag moo tax bagage yi bari mu daal di koy jéggal ba noppi nag ne ko jox ma sa adresse mu jox ko adresse bi ci ginnaaw suba ba ñëw na fi fekk ma fi daal di euh, jël renseignement yi daal di dem ca la sëñ bi daal tey suñu borom loolu la ko fay soxna doo xëy mais tamit waajuram mi nga xam ne mi mooy moom moom moom wax nañ ko léegi bokk na ci première ndongo ci daara ji nga xam ne sax dañoo inscrire tout Dakar ànd ak soxna ndey mi ñëw fi ci daara ji panadel yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant dëkkandoo yëpp nag xam naa ko lim da ngay jum waaye soxna jaar yi tamit di jàngalekat yi suñu doom lañ ndax ñoom ña nga jànge ci Porokhane ba mokkal ba am fi ñoo xam sax fa kii nga xam ne moom mokkal ñaar ñi jàng na ba mokkal ba am fa ñetti at jàng xam-xam ba bind fa ab kaamil bu rafet sax indaale ko muy soxna maam jaara jàng jaar maam jaara si lamit kasaalika naka noonu ak soxna maam jaara jàng comme ñoom ñoo yor xale di leen jàngal te ñun ñoo leen jàngal ci Porokhane yar leen ba seen jàng seen yar yépp ñu ñu ñu ñu seede ko moo tax ñu di leen fii ñuy jàngal xale yi ba def ci ñoom lu def ci ñoom ñu def ko ci xale yi ñu tey kon ñu ngi sant sam ndongo yi di leen Euh, gërëm bu baax di leen wax na ngeen góorgóorlu ndax seen mbokk yeekat la ñu am te wax ngeen léegi ne yéen ñun ñeenañ leen waaye nit ki nag boo ko ñee tam da ngay def la mu defoon ci coono effort ba am la mu am kon soxna Roqayatu soo defaat bintu lee ñu am tey ci teraanga ak diplôme ngeen la waaye yéen da ngeen góor góorgóorlu ba am ko bis bis bu euh, bi ñu am ni tey ngeen am ko fii ci kanam ñëpp seen i mbokk ñëw daal leen di sargal kon Euh, euh, soxna maam bu sa géey tamit ñu ngi sant ci bàjjen daara yi la bokk xam naa jotu la ñu waaye am na fi ay ndongo yu bari bi ñu agsee rek fi ay ndongo yu bari kon daal defe naa ko lim da ngay jiw waaye cant gi moom dañ koo euh, matale ba ci ñi ci waañ wi tamit ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci daara ji ñëpp ñu leen sant di leen gërëm am ñu seen fay suñu borom moo am seen fay yàlla na suñu borom fay leen sëñ Sang Njaay sëñ Xaadim mooy magi soxna Oumy bi ma sëñ bi yóbbu ca daara fekk maa ngi yor sama daara ca Ndakaaru ni mu ko waxee Parcelles Assainies Kër Massar euh, Parcelles Assainies dakaar laa njëkkee woon ñëw Kër Massar léegi moom moo bàyyi am njàngam daal di ñëw toog ca daara ja tey jii ba daanaka daara ja fa mu ci loxoom kon li mu wax nii moom da koo loolu lay doxee da koo gëm ba mu jéggi ba tey jii sax wax nii 4 heures du lay jóg di jàngale du ko du bàyyee kenn njàng kon daara ji kon sant suñu borom bu baax a baax rek euh, yeneen daara juddoonu ci wax na ko euh, suñu benn dongo bu ñu wax soxna maam Fadlo ma nga am daar ca Dakar ba ki dem la doon def conférence bu mag ca Dakar suñu Abdou Fatah suñu doom la moom it mi ngi euh, ubbi fi ci daaru saw di fa yëngutu ak daara di daara saw moom mu njaay loolu sant suñu boroom la kon na ngeen gën a góor góorgóorlu yéen borom daara yëpp te gën a jàppaat xam ne euh, lu ñëpp bëgg la léegi comme dañ ko bëgg nag te ci yéen lañ ko mën a amee yokk leen seen effort yokk leen seen coono lu ngeen sonn doyut lu ngeen lu ngeen ci def ci seen alal ci seen doole seen xam loolu doyut nañ ci gën a jàpp baax te xam ne suñu borom moo nuy ngëbal boppam ndax alxuraan wax nañ ko ca démb tey sax tane ndax weer dina dee sax kenn ñoom jox la dara waaye daara yi ngeen fi tudd démb muy daara yu mel ne sëñ Malick Dia sëñ Mor Mbaye Cissé euh, sëñ Mouhamed xam nga ne benn euh, parent daaw fa joxe benn dërëm da nga fay ñëw jàng ba am fa fukki at duñ mës a gis sa waajur te teraanga dañ daan am suñu borom dina ko teral dañ ci teral ñeneen ñu xam ne ñu ngi ciy kon alxuraan ku ci nekk ku nekk bul tiit bul jaax suñu borom moo lay ngëbal boppam waaye nag ku ci def sa dara tamit yàlla nga ko defal ku ci def sa dara yàlla nga ko defal béréb bii ku nekk xam na ne xaw naa bëgg nañ mu gën a yaatu ndax man daara damay bëgg ndongo yi damay bëgg ndongo lu nit di lekk ci lu neex lu baax ndongo la ndongo yi gën koo mën a am fu ñuy tëdd fu rafet fu luxe ndongo yi gën ko man loolu laa gëm nag léegi fi nekk nii lu baax lu ne defe naa ne ndongo yi ñoo ko gën a war a am ci kenn ku mën ba tax lu ma ci def dama koy xel gis ngeen ci kaw ñu ngi commencé yokk ci kaw nii ah yokk naa jéem naa jéem naa jéem naa ba taxaw fi ma taxaw waaw te nag dafa mel ne daara ji moom génnee gudd lu mu def ci kaw li ma dellu ci kaw nii ay millions yu bari la waaye ci sama effort bopp laa ko am ak samay lijjanti yi bopp waaye daara ji génnee gudd kon nag fi ma taxaw nii bëgg ma fa a taxaw damaa bëggoon mu àgg ba nga xam léegi day yaatu ma def ci climatiseur bi muy féex euh, ñu néew ni ci tëdd ñu defal leen ay lal yu rafet loolu laa bëgg sama xol kon nag xëy na du ma doon kuy man a tàllal sama loxo di ko wut waaye dama tàllal sama loxo suñu borom di ko tàllal sëñ Amadou mi nga xam ne lu am moo ko may moom laa rek moom laa tàllal sama loxo yi di ko ñaan ne ko fii na ma ko àggaleel ba mu ba mu rafet ma def ci ndongo yi mu yaatu li ma ci bëgg lépp mu am ci waaw ñuy lekk lu neex di tëdd fu neex fu sedd ñu leen di jàngal jàng bu baax loolu laa gëm ndax ñoom ñi jàng alxuraan teraanga ju mën doon ñoo ko yeyoo ci keneen kon maa yemale sama kàddu foofu di sant bu baax di gërëm cant mënut a woyee su cant sant naa ñëpp ndey mi njaay tamit dinaa ko baral cant ak boppam ndax ni mu toll nii ay atam tolluwul noonu ca daara ja la wàcce alxuraan bi ko sëñ sànq euh, waxee ba min ko lool te saasara ñu may ko mu dem kër booy fukki at ñeent la kon teel na faa jóge dem kër ni mu toll ni ci ci jëmmam ay atam tolluwul noonu waaye tamit mënoon naa nekk ci leneen euh, waaye ba ko waajuram ne ko ñëwal ci daara ji ba tey mi ngi ci di ci sonn lool nag sonn na ci lool te waajur ndongo yii mën nañ koo seere defe naa sonn na ci lool bu dee bëccëg suba ngoon mi ngi ci du booy wax ak moom xam ne muy wax ba ngay wax ak kee wax ak kee wax ma ne ko yow yow léegi nga dof dofu euh, jàngalekat dama ngi a dal kenn mënut a wax yow leer ba ngay wax ba tontu mu mat jàmbaar la ci lool waaye nag yokku ngóoram yokku jàmbaaram ci liggéey bi ndax liggéey bii kat ku ko yor ku ne yàlla dalaa teral teraanga doom nga yor nag waaw nun dañoo waroon di fay sax waajur ñoo leen waroon a waaw ndax teraanga la joo xam ne ku ci nekk ku ne sóobu ci rek yàlla moo la ko tere la du sang baax du sang man bu sa leen waaye teraanga suñu borom la ci yow ndax soxna maam Mariam wax na ko léegi ci gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba pat di ko jàngale waaye tamit dana ci duggu kii dimbale waa nit alxuraan ca ca ñooñ lay bokk ndax kat fañ toog di jàngale buñ fa toogante kenn jàppale wu leen kat faaw ñu dem wuti luñ def ca ca daara ji kii ñëw nag di def andi sa doom di andi sa sa suuf di ca def di andi di fa andi ca ña gën ca ka bokk kon parents d'élèves fi ñu ngi leen sant leen gërëm di sant ñëpp di sant tamit sëñ Mourtala sama doom ak ñi mu liggéey bi euh, sëñ Mouhamed euh, sëñ euh, sëñ waaw ñu ngi lay sant bu baax ci sa sa sa sëriñ bee bu ñu ko sante rek doy na waaye yow ak ndongo yi nga jiite jiite ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan suñu borom àggal leen fi ngeen bëgg a àgg ci kanam seen sëriñ bee di Mouhamed sëñ Mouhamed Dia sant nañ baax sëñ Aliou ñu ngi sant bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf di ñaan ci boole bi yëpp ñu ñaanal ko si mboom ci baaxu sëñ Tuuba li mu yéene ci xolam te loolu am nañ ci yaakaar bu baax wax dëgg yàlla kàddu yi am na solo te soññee na di wane ne ne alxuraan rek lay dund alxuraan mooy li koy moom lay yëg moom moo koy bégal yàlla na sax nag ci mboom bu dal fa ne lépp rek dafa laa leen di lu wér-wér la lii buñ bu moom leneen leneen lay doon kon waaw waaye ñu ñaan si moom bu dal fan itam euh, boo liggéey ci biti incha allah rabbi kon naa ne euh, sëñ bi bàyyi euh, ko mu ngi jox ay xéwal yu am solo yàlla war na demit bu añ jotee nga ñëw nga añ insha allah rabbi tey day bisub aljuma moo xam mel na ni waxtu sawaat bi jege si la kon su ma yàlla ñaan nag su ma defee ñu tënk kàddu yi foofu ñaan si borom bu barkeel liggéey bi barkeel jotaay bi barkeel donga yi bi barakati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rahma aca taxal waaw kay a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim غير المغضوب